ak Grand Thiès commencé nañ ko si Silma ak HLM Thiali tey ñu ngi si Grand Thiès suba ñu ngi kër Cheikh ak Medina Fall bu ngeen xool tey réew mi Macky Sall ak nguuram bu tole ñu ngi xoqatal nit ñi di jaay doole nit ñi ku am sa alal nga liggéey ko nu mu gën a sellee ñu ngi koy nangu di si teg seeni loxo loolu mënuñu koo tuddee dara lu dul ab sàcc parce que li ñu def Aïda Ndiongue képp kuy jigéen nekk yaay war na am naqar si lu ñu def jigéen ju mel nii may ñaan jigéenu Sénégal képp ku mbir bi naqari na jël benn journée consacré ko à Aïda Ndiongue que may ñaan suñu yaay ak suñu soxna yi ak suñu mag yu jigéen yi suñu umpaañ ak suñu bàjjen yi bu kenn toggati añ jusqu'à nuvel ordre parce que nag lii raak sa ñag ba la jëm suñ ko bàyyee ñoom bis bu ñu perte les législatives wala élection présidentielle yi danañ ko sàcc parce que loolu la ñuy préparé mais ñaan na ñëpp jóg taxaw lépp lu ñu yoon may nañ ko utiliser pour jàmmar ak ñoom parce que nag xeex politique réponse politique la ñu war a apporter nañu bàyyi réunion yi si bureau yi te wàcc wax ak askan bi parce que réalité baa ngi nii si réew mi nit ñaa ngi koy dund guddi ak bëccëg problème mu santé baa ngi fi problème mu éducation baa ngi fi problème mu électricité baa ngi fi problème mu ndox baa ngi fi problème mu jàng baa ngi fi tey senegal foo laal mu ngi metti li ko waral gouvernement wu zéro gouvernement wu zéro rek la ñuy am la preuve résultat yi sax. wane nañ ko ba ci Jeux olympiques yi donc tax na tey ñu war a bokk ndey bokk baay pour intérêt Sénégal pour lu jëmal réew mi kanam li koy waral mooy nañu taxaw jàkkaarloog Macky Sall jëlee ko fi parce que li Sénégalais yi yaakaar bi ñu amoon ci moom Macky Sall ak i nguuram bu tale chaque jour que jëfee ñu ngi def luy naqaral doomu aadama yi parce que nag Sénégalu la jooru démb. Sénégal u Aline Sitoé Diatta ak notre valeur frère Thierno Niane tey vertu yooyu ñu doon ut si doomu aadama ak nit gisatuñ ko kon jot na nag tey sénégalais yi taxaw jóg jëlee fi li nga xamante ne ñoo fi nekk duma ma te gërëmuma suñu frère suñu rak suñu xarit muy le secrétaire général de l'UCL-US muy agi bu Ndiaye parce que détermination am ak engagement am si politique firndeel na ko te saa su nekk mu wane di wane njomam courage am détermination am ak engagement am tournée nag lañ dem te façon nañoo wër cinquante deux quartiers Thiès yëpp wax ak askan bi balaay législative yi jot parce que nag am nañu ay candidats pare nañu pour récupérer la ville de Thiès au nom du parti démocratique sénégalais suñu paree si loolu it ñu jëmal suñu candidat muy Karim Meïssa Wade préparer les élections présidentielles kon nag mbokku Grand kontaan nañu seen taxawaay kontaan nañu it si seen mobilisation parce que lii weddi gis bokku si liggéey bi nag buñ ko yemal fii parce que la preuve mu ngi taw nit ñi toog nañu di xaar di ñu déglu parce que lii rek mooy wan ne Sénégal jot na ñu soppi doxalin Sénégal jot na ñu soppi taxawaay Sénégal jot na ñu soppi njiit gi fi nekk ak ñu mu àndal wasalaam.